jërë ngeen jëf yéen ñi tàmmu dakarnet.com n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour que ngeen mën di jot suñuy vidéo saa su nekk vidéo yi ñu mën ci dugal rekk ngeen bokk ci ñi ci njëkk jot ñu indi leen nag xibaar bu tiis ci monde de la culture plus particulièrement monde de la musique sénégalaise fële ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar kii di Ndeye Seck signature moo wàccu liggéey ne Seck Signature nag mu nga génne àdduna fële ci hôpital Saint-Jean de Dieu bu Thiès ci guddik samedi jàpp dimanche ne Seck Signature bokkoon ci ndaanaani réew mi ñu gënoon ko ràññee ci jamonoy Ndiaga Mbaye jamonoy Madiodia Gningue ne Seck Signature nag woyoon fi woy bu siiw boobu noonu ñu doon wax signature ndeke yaay boroom kii di Ndeye Seck Signature wuy ji na sunu boroom ci guddik samedi gi rédaction dakarnet.com nag ñu ngi koy jaale waa këram ak képp ku bokkoon ak moom rek aar bi mu doon def mu di musique ñu di ko ñaanal rek fa mu jëm gënal ko fuuf fi mu jógee yal na ko yàlla xare aljana firdawsi